asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi si suivre sur kon ni ñu koy defee à chaque fois actualité oblige te fi ngi si géejawaay ñoo si si champion gannaaw bu mu bëree ci combat am le vingt cinq décembre mu nekk journée Baba Thiam di Thiam production di ko wat bu baax a baax bu Siteu ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmbam bi mu jógee jëlaat na avance ñu bari ne bu Siteu day xaru dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu waxtaan ak moom Bou maa ngi waaw ginaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax a baax a baax waaw di sant su may wax sax dama naan sant international waaw dëkk yi fépp foo dem waaw waa diaspora bi di nuyu gaa yëpp di bëggee képp kuy fan si Bou Siteu rek di bëggee Bou Siteu rek Farmaja léegi damay sonn Farmaja su ma génnee. taay <laughs> damay yor sama mur a génn foofu laa ba léegi parce que nit ñi maanaam niñ ma ràññee léegi xàmmee ma. Ah. xam ma bëgg ma taman xaw ma lan laa liggéey ba nit ñi bëgg ma man xaw ma lan la. barke Serigne Touba Mbaa man loolu dafa may jaaxal quoi Samba Diop fu ma dem nit ñi dañ maa bëgg. ràññee ma léegi xam ma. Hmm. international fépp fu ma dem si talibeeg fépp. waaw di bëggee jàmbaar yëpp nag képp kuy bëggee bu si rek foo mën mënti nekk wallaahi maa ngi lay bëggee te parce que fu ma génn gis gis loolu mhm. gis ni ma gars yi di enjoyé daal mhm. waaw wan ne ma ne yow léegi Sénégal xam nañ la waaw te man xaw ma nag man lan laa liggéey ba nit ñi mel noonu si man Farba Diop maa yaa lu garaaw de mhm. ni ma mel wallaahi yombul mbër bu ko mel guddi yi nii ñu mag ñi ba ji waaw samay waaw yaa mu gën a xam xaw ma daal lan la daal yàlla na jàmm yàlla boo xamante ni wax nga ko nee nga yow international nga mm-hmm. nekk nga xale boo xamante ni soo bëree bu neex soo bàkkoo mu xe bu neex nga am tamit mobilisation bu doy waar bu Siteu sa diggante ak ki nga xamante ni moom mooy mm-hmm. moo tax nga jël combat boobu ndax allah ñi ci xam loolu ñëpp mbër xam nañ ko ci moo tax nga jël combat boobu waaw ndax ma jël combat boobu rek comme ni ma ko waxee woon rek Aliou Farfat maanaam man dama ko yàgg estimé daal mm-hmm. waaw yàgg ko bëgg a moom tax xoo xoo mag Aliou Farfat ni mi nga xamante maamu dañ koo méngoo tolloo ko ci làmb imagine toi li ma la rek 2016 ba léegi ma nekk si lamb ñuy may tonteer man tam ma yàggoon bëgg a bëre moom te parce que niñ tolloowee ma ak moom mu nekk combat boo xam bu neex lay doon ngay bëre ak sa morom waaw maa moom dama ko yàgg a estimé daal yàgg a bëgg a bëre ak booy boobu noonu Aliou Fat Fat wallaahi combat bi man maa woo promoteur beneen keneen sax lañ ma wax wulli lañ ma waxoon man leen soxla ma wulli ne tëggal lañ ma maag Aliou Fat Fat wulli wulli rek sama xarit mooy loolu yaa ma gën a xam barke Serigne Touba ma ne Abdou Lahad non non tëgg bo boo boo mënee tëgg maag Ali Fot Fot mooy loolu te que boobu yàgg naa ko topp mais munu mooy loolu mhm. Abdou Lahad dox ko mu taxaw xama rek boo bi nangu tamit mu nekk tamit lu ma neex waaw yaa ma gën a xam nga jël combat bi ñu gis ni Bou Siteu détermination bi am ba ci cadre a nan la entraînement yi demee woon waaw entraînement yi nu mu demee woon rek muy gis nga nekkoon naa Tivaouane Peulh nekk te avant combat bi taxaw sax maa ngi nekkoon samay entraînement nekk Tivaouane Peulh gëjoon naa fi yow gis nga sax hmm. ma nekk Tivaouane Peulh ak nekk si entraînement yi man Tivaouane loolu foofu dafa fu ma dafa calme ay cité la foofu amul ay génn ay kii xam foofu dafa calme daal moo loolu hmm. yaa ma gën a xam ma nekkoon fa nekk samay entraînement ñëw di dallu saagu jege na ma si koñ la nekk waaw di nuy ji nekk salle bi Mamat Dabel di nuyu Serif ki moo inscrire salle bi benn grand bu baax bu yor foofu bitigam mhm. heure mooy dem salle may romb si mu gis ma nekk si entraînement yi nekk si bu baax yenn saa sax day ñëw salle ba mhm. xam nga nekk si diini foofu di ànd ak booy ñoom papa mafia bi gars yi nekk foofu waa Namara xam nga rek nekkoon samay entraînement tombé combat bi taxawaale woon nag mhm. ñu jël ko rek waajaal ak moom waa ba pare combat xam nga dañ na si daal ay coono yu métte métte ci cadre bëre ñëpp xam nañ ne la mais ba ñëwee ba ci stade bi gis nañ ci côté mobilisation macha allah mais yëpp ci côté combat bi ci arbitre bi sifflé nga féete à gauche moom mu féete à droite mhm. mën ngaa ñëwaat bi. waaw waaw combat bi gis nga arbitre dana piip. Mhm. loolu mais avant ma bëre sax xawoon naa xam nga combat bi dëgg la ranking laa ko bëre waaleel. ndax la waaw ku xool combat di nga xam ne buuse ta ranking laa ndax avant ma bëre gis nga arbitre yi. Mhm. sama diggante ma am sunu adversaire si géew gi dañoo war a dañoo war a bàyyi ñu neexal. man buuse de déggu lu ma laax. man du ma mës a def lu ma nit di yabee wala may def loo xam te ne luñ luñ may wooyee xam nga comme ni ñuy def yenn mbëri nga bëre ba pare ñu ne waa CNG woo nañ la est ce que yow loolu mosoo ko dégg si man musul am man ta parce que xam naa règlement yi xam naa luñ teg xam nga règlement yi xam naa règlement yi bu baax règlement yi loo xam te ne daal si sa diggante yaa sa adversaire xam naa règlement yi man dofuma dofuma sama adversaire ñu war a bëre may nekk si géew di kat def loo xam te ni bokkul ci làmb non comme comme di nga ji rek dafa sax béjjën laa yoroon léegi arbitre nag man xaw ma lan la te ma xam ma rek maanaam dañu ma teg benn waruñu ma jàppee benn bande wala dara quoi ah, loolu lañ ma bëgg a jàppee te parce que bu man du ma xam nga rek dañu mel ni sax kii eh. yor dañu mel ni sax man sax aw ma xel eh. ni ñu may kiiwee noonu dragalment su ma nee nii ñu daw naaw sama kaw arbitre yi hmm. su ma dem ñu kii fa Sitor sonalement Sitor moom yàlla bu mu arbitré sama combat eh. wala Sitor moom xam na man xam naa ah. te parce que man xaw ma kooku man lan laa ko def ah. te parce que bi dafa yàgg de ah. non dafa yàgg man ranking bi ma jàppal da man xaw ma lan la man si toor xaw ma ko man ci làmb laa ko xamee mu xam ni la comme arbitre yi fi nekk rek comme ku si mel ay Malick man ma daal si toor man lan laa ko def man Fatma Dia heure bu muy arbitre sama combat dina ma fa indil bruit boo xamante ne xama yaa ma gën a xam man xaw ma lan laa ko def nag Uh-huh. waaw Sitor moom xaw ma lan laa ko def uh-huh. man moom loolu moom bëgg naa moom mu def émission mu leeral man lan laa ko def wala moom dafa ma teg benn bandi wala benn koo xamante ne nii xam nga booy bi warul bokk ci làmb uh-huh. waaw te parce da Bou Siteu dafa bokk ci làmb gis nga man damay neexal man àddunaa ma bëgg man ni ma bëgg sax bëgguñu làmb siiwuruñ sax làmb te parce que Bou Siteu international la mais man dama xamul man Sitor man lan la mais yàlla boo arbitré sama komba te parce sa combat bi école de lutte moo faram nga ko préparé. laa ko maag Cheikh Super ñoo doon ànd chaque jour heure bu ma jugee ba ma ñëwee fii tamit Cheikh Super Jamono appartement am la muy yóbbu xam nga rek jox ma fa ne maa ngi koy wax sa sama point de presse bi. ok woon moo tax. léegi lan moo tax ñëw di demoo su école ñu suñu si ginnaaw gaala bi la Cheikh Super Jamono seen kër foofu la su kër gaala Cheikh Super Jamono si ginnaaw la ñuy entraîné forage bi. Ah. fa laa doon nekk sax ngoon ñu dem école ba. ñoo doon ànd fajar di matinaalu. d'accord nga féete à waa mu féete à droite. waaw ñëwaatal ci combat bi pour Siteu ban erreur la def. non erreur bi def muy maanaam maa ngi koy wax sax sama face à bi ma doon def léegi keroog gars yi def na combat bi gaa dañ ma dañ ma tooñ. waaw parce que du ma wax sax gars yi ah. gars dañ ma téeloo sama bopp yow xoolal sama combat maag Rowan Ndiago man faa ma jël loolu sama bëre ah. man ñi ma daan ñëpp damaa daw dox seen kaw kon kii nga bëre conseil non dañ damaa bëre teel sa bopp pourquoi may téye sama man xaw ma téye sa bopp. ñan ñoo loolu. ñëpp ma conseillé presque téye sa bopp téye sa bopp nañ ma bàyyi man maamu laa xam. wallaahi man man maam mooy raa man ku xam xam ne buusi da day maamul man moo laa man boo ma tukkee rek damay maamu. xam nga maam mooy raa man damay dem. mais waruñu ma téeloo sama bopp. yow xool xool xool ni ma bëree rek ak xool sama combat yi fi passé sama combat maa caatu rëbës na laa def. ab bi dina pib ma daw ma ma gis nga man ñu may bëre toloon ni inama bu arbitre ne pipe man maamu laa xam mu ñëw la gars yi teeloo ma sama bopp ma def loo xam mënu ma ko ah. yenn saa damay gis nga damay hésité sax bëgg a dem mais xam nga parce que dañ ma def loo loo xam ne si combat bi mënu ma ko waaw am na samay fans yu bëri yoo xam dañ ne ma mbëri yow combat bi waroo woon tee sa bo da nga waroon tàq ci kaw booy bi ok ban nan nga juumee ba booy bi daan la non ni ma juumee mi après ma gis nga dama daw jël ko sol ko jàpp ko avant ma koy jël dóor naa ko fa góos bu saf man mm. damaa mën a xeex carrément ah. loolu sama boire bare man sama métier bii ma nekk ah. ñu jàppante dama ko mën ñu taxaw di léewtoo dama ko mën gis nga dañoo kii man ko tëf ku dama ko dóor ku boo xam ne gémmañ gi sax dafa toj gémmañ ah. gi sax dafa toj mais arbitre bi gis naa ne attewul deful dara si laa jékki-jékki nag booy wax am xam mamu si kawam rek si laa mamera daw jàpp ko ma ko jàppee ñu ne daf la xaw ëpp doole non non ëpp ma doole c'est que ni ma ko jàppee moo baaxul dama ko jàpp fee mu daw jàpp fii mais moom moom moo gën a jàpp normal mm-hmm. mais ma dama ko jàpp pare mais ma dafa ràcc tànk bële léegi sama loxo bi ma duggoo si biir sama loxo waru woon dugg si biir sama loxo dama ko waroon rocc uh-huh. man bëre bii laa xam uh-huh. bëre jàpp la fii la la daw xar la daw ak yow dóor la ci suuf man bëre laa xam mais xaw ma bëre sama loxo nekk si biir dama def erreur foofu man foofu dama waroon rocc sama loxo génnee ko uh-huh. mboq ko moom loxom nekk si biir sama loxo nekk si biir loolu mooy sama bëre ok léegi moom mu daan la nga teg la deux défaites sa diggante ak Laurent ñu gis ni Laurent Ndiago bëri na buusite daal mhm. bëri waak alliance balde daal ñu gis ñu na Laurent yéen ñëpp da leen a cenc est que loolu yaa ngi koy dégg ndax gis nga instant bi nag moo leen gën a xew nag moo loolu man ba nga jo man maa nekk mbër boo xamante man mhm. instant yi nii wallaahi muy mel ne maa daan ah. man déggolu ma man sama combat maa Laurent ak sama combat bi man combat yi ma daan daan yëpp dama daan jooy damay dama damay daan sax di jooy mais dama gis ne sama ñaari combat yi ma daanu yëpp mhm. man sama combat bi jooy ñaari yi ma daanu yëpp jooyu ma ah, dafa ma dara bii dafa dafa gën a neex si man parce que dañ maa damaa daanu mel ni maa daan parce ah, que Serigne ma gën a xew torog open press Balla Gaye ma ñëw fa yor un million reliquat yëpp yow gis nga sa kanam ma eh. séddale ma géwél yëpp sama yaram moo tàng man Balla Gaye de eh. maanaam man ko man daal xaw ma lan la daal mais yàlla dafa mel daal dafa ma branché léegi si Balla Gaye 2. loolee sa xol yëpp. barki Serigne Touba Balla Gaye 2 tamit am fu ma teg. mais xoolal keroog rek. Mhm. sànq eh. ku la fonk la. mais xoolal li ma la wax. bal de la bëgg da ngaa premièrement sax ba ma dugg see stade bi. Balla Gaye 2 sax dafa tiit mu ngi tiim di xool moom lan la ñuy ñi di yuuxu ndekete sama dugg si. xoolal ma ànd ak sama doom nday guy gi. dañoo dugg si rek stade bi ñëpp yuuxu. man nag ma gën a xam ne man géejawaay nag am na fu ñu ma géejawaay géejawaay dafa yaatu. Mhm. barki Serigne Touba Mbacke Fall géejawaay dafa yaatu. ñun ah. ñi bëggal ma seen bopp képp ku bëgg bala Gaye 2 bëgg nga Bou Siteu. Ah. te parce que ñëpp xam nañu man dama jël sama lépp jox ko Balla Gaye 2. léegi boo ñaa Balla Gaye 2 jours yi mooy 2. Mhm. combat bi Balla Gaye ba mu tuusee. nga gis booy ñaa tuus loo wax en tant non Boy Niang moom maanaam Boy Niang maanaam si li ma gis. Uh-huh. maanaam Boy Niang dafa mel ni ku am perfection est-ce que xam nga ne ñoom Boy Niang lépp lu ñu wax. Uh-huh. ñun day seen plan lépp lu ñu teg ñëwaat ma si ba si ba sa borom kawul bi. waaw li ma ma fa dégg yëpp. yar bi ba ñamal ñu. ah man du ma ah. lépp lu ñu wax foofu day sénnuwaat fii. te parce que géejawaay dafa yaatu. mafia bi dafa yaatu. amaana nag. ku xamul làmb wala nekkoo ci biir làmb bu baax. munoo xam loolu. tey la moo tax nga ne. mais combat Balla Gaye 2 Boy Niang bi lii suñu combat la combat jàmbaar yi la combat nante la. te su bis ba la première jàmbaar yi rek ngay gis ñuy teree na foofu. léegi yow lan moo tax nga am pression Boy Niang bëreeg ku nekk bëreeg ndaanaan bu dem na Balla Gaye soo dëggalee sa bopp une minute. Mm-hmm. laa la may Balla Gaye nee une minute boobu bu deful dara mu fekk si ko nga naan dafa am pression. wallaahi dafa am mais ñun si làmb lay nekk Boy Niang man du man man Fatma Diagne est-ce man du ma wax loo xamante ne nii Fatma Diagne nekkul ci man wala gisuma ko. man dundoo ma noonu. mais Boy Niang combat bii nii wallaahi dafa am pression bu rëy. ñoom lépp lu ñu def day seen day ñëwaat si ñun. comme comme Kaalan. comme yu bëri. comme na ba ci débat yi wax si borom kagul bi sax. Ah. te kooku ku ko laal dang may laal. lu ñuy wax dañuy kooku gis leen ko mu takk kagul ba kooku sama nit la de. et eh, que lu ñu wax kooku nit la comme man. gis leen ko muy sol kagulam boobu ngeen di wax. kooku bisu la première wallaahi li ngeen lal ñun xam na demee de kooku ku ko laal danga may laal man déggoo ma laal man combat Balla solo ma sax ku may wax naa ma bu ñëwal nii wala nee te parce que combat bi combat jàmbaar yi la boo ñaa mënul daan raq daan mag mais Farma Dia nañ waxante dëgg mais loolu ku bëgg Balla Gaye dëgg mala sam waay lii war na si teg sa bakkan xalaatu seetaan te combat bi amul lu ma si ragal wala amul lu ma si bañ ok te parce que combat bi combat dër bi la ki ñuy al waxaala. boo ñaax yeah al boo ñaax. boo ñaax maanaam daan Balla Gaye boo ñaax daan Balla Gaye de loolu mooy buusita sax nga dégg buusita xot ndellu na. loolu wax ni waaye yow ma bàyyi nga naan ma lii boo ñaax. Ah. non boo ñaax al waxaala. barke Serigne Touba Mbacke. ok mais boo ñaax fu mu toog ay géej waay saako joor nii yow saako joor ba nga koy daan sa saako joor dafa tawatoon. ñun si làmb lañ nekk ñu nekk ay xale yu ndaw non xam nga rek kooku wallaahi munul daan Balla Gaye 2 te Balla Gaye 2 sax doful sax ba ko maanaam sax di may Boy Niang sax mu koy yegg fii ma xamal la lool ci làmb ah. dina ko dóor dóori métti ba Boy Niang boppam ba Balla Gaye dóor du Boy Niang du moromam léegi yow lan la yox ci kii non xam nga rek ay comme lu la si làmb lañ nekk ñoom lépp lu ñu wax day seen day ñëwaat ci jàmbaar yi dañ ne day day dindi masque bi. non wan masque. Hmm. maanaam ñoom plan bi ñu laal ci borom kagul li ñuy wax yëpp ñun egg na si ñun. ok mais te kooku bis boobu noonu ku ko laal ma la sam waaye xanaa da da. mais ñoom tamit am nañ kagul. moo ñoom seen kagul foo yooyu maanaam ñoom dañuy ñaw ay morceau ci ñun. te <laughs> baalu ko doon kagul ci ko baalu ko doon ñaari ko tiital si lu mel noonu. ngay créer sa yëfu bopp. ku soloon kagul da nga koo xam. kan. sagul soloon kagul. kagul ban. si yoon booy ñaar da nga koo xam. waaye kooku du dara koo xam naa ko bu baax. syndicat bi la nekk wallaay xam naa ko bu baax daa ñawlu loolu xam <laughs> nga rek dañuy toppandoo ah. Balla Gaye 2 moo nek nit koo xam mooy indi slogan ci làmb loo xamante nii maanaam ci suñu cosaanu maam mais ñi dañuy toppandoo rek Balla Gaye 2 du yi tuus bi mais mooy mooy mooy muus bi yéen non Boy du gaynde Boy Niang bañ na ko sax ba luñ ko woowee si làmb si lu si ah, ak ah mais nag eh, gaynde cappaacoli Boy Niang cappaacoli non li cappaacoli cappaacoli rek càppaa cooli comme ma ko wayal sax booy ñaa sonal nag way rek way laa mais combat bi la a fekk booy ñaa mën naa daan Balla Gaye ci une minute tan loolu xel sax xalaatu ko ah mais booy ñaa nag attention non yow fan nga foo nekk wallaahi loolu xel xalaatu ko laa la wax ok loolu yow loolu du am nga ni wallaahi du am te Balla Gaye dina ko duma dina ko daan ñu hmm. ñibbi seeg suñu ndam def stade noo xam musuñu ko def kon daal combat bi da ngay wàcc suuf wàcc yi la. ci suuf ngay wàcc. combat bi ku dul jàmbaar doo fa taxaw laa la wax. la ni ñun ay jàmbaar la ñun géejawaay lañ dëkk. ñun ay kuy ban message ngay laajte si. tapet yi mooy mooy Boy rek. mooy tapet bu mag bi Boy Niang dama ne. ban comme que nee nga ku dul jàmbaar bu ñëw mooy képp koo xamante ne ñëw nga yaa ngi ñëw combat ba te amoo fit. waaw ban ban la leen lan ngeen di lancé. non li ma leen lancer rek muy ku si nekk ma la sam waay boo nekkee tapet nga toog sa gaala wala nga jënd sa sa sa connexion bu dee nga seetaan ko si si Lamyn Lutte TV xam nga mais fee jàmbaar yi ñooy wàcc ci terrain yi ah. jàmbaar yi ñooy wàcc ci terrain yi képp ku bëgg baale Gaye doo foofu da nga fa war a feeñ ah. waaw taxawaay fa taxawaay boo xam ne di vigilant ah. waaw ñun ci làmb lañ nekk waaw man yow yaa ma gën a xam. loo gisee vidéo boobu déggoo fan yii mi ngi leen di kii de. no dëggal moom mooy loolu billaay dëggal ah, na ma gars yi baal la mais dëggal la normalement a ngi koy sonal waa ah. staff booy ñaay ah. keroog rek xam nga ban dëgg la di gor kii bi mu ngi gor kii bi sax band bi di waddaat mu leer leen tëj leen tëj leen nañ <laughs> di sonal sama papa jooju daa toj loolu mu ngi doon def am lu mu doon def si guy gi band yi di waddak kii maa ngi dégg seex sax seex ñang xooma maa ngi gis sax mu naa ko père fëggal bu baax oh kon da ngaa jàpp ni gàllankoor seen affaire yi kii wul assuré wul. toj na. Balla Gaye de day na mën fépp. ci fan. ci côté bu ne. mais Boy Niang tamit. ci zaahir ak ci baatin. Boy Niang tey waa Pikine dañoo mën sot de. Balla Gaye de ëpp ko moyenne. Boy Niang combat bi Pikine dañoo mën a. Salma Dia. Mhm. combat bi wallaahi is nga xam nga ne Balla Gaye de combat yi mu bëre yëpp combat bi laa si gën a soxla. c'est Ah, parce que dafa am benn bërërë boo xamante ne nii ñu koy wax Mopol. xam nga ah. Mopol. Mopol waaw ah, nekk si diaspora bi su ma xarit la nag. mais moom maanaam moom jàmbaar la daal moom deretu Pikine mooy mooy daw ci yaramam Mopol. ma wax la ko tey. Mm-hmm. maa moom fan yii passé dafa maa dafa maa envoyé ma ne dana am dara. Mm-hmm. maanaam sama gàncax dañoo rusante de mais. deretu Pikine mooy daw si yaramam. moom jàmbaar la. mais dafa dajak jàmbaar. ok te combat bi sama combat la Mopo lu garaaw laa la. naa la duma naa la daa. pour yow combat bi ci xeex lay jeexee wala ci bëre. Hmm? combat bi ci xeex lay jeexee wala ci bëre. non combat bi maanaam Balla Gaye de da koy jàpp duma ko daan ko. ok moo gën a moo a dëgër bopp fuuf Boy Niang mais xoolal ba ko Balla Gaye de. gën a pare sax ka bi ma lay wax nii. moom Modou Lo seen revanche bi passé. da koy duma da koy daan. wallaahi da koy duma da koy daan. Boña du ñu yab. wallaahi Boña du yab nante yi. ah du yab. yee du yab jàmbaar de. acca boobu non Boña du ñu daan. ok fu may jeexalee mooy ñu ngi dugg ci mois de décembre. tey nekk le trente suba nekk le trente et un te ne ay cadeau. bu bu la lay préparé soxna si nag cadeau bi. non cadeau bi moom mooy lool yóbbu naa ko bu pare. yóbbu nga ba pare. non yóbbu naa ko. leer ni non jëndal naa ko bu seer boo xam cadeau la si décembre bi. oh kon cadeau la laal noonu. waaw non cadeau la ko non dama ko ko jox da nga ñëw rek jox non dama ko jënd ñëw rek jox ko téléphone bu seer non loolu simple la parce que sama jabar dama war a dama war a sagal sama jabar man loolu dafa simple nga ñëw jox ko cadeau rek noppi amoon leen loo ko ci wax non nice ban déclaration d'amour nga def foofu non dama ko ko jox noonu rek ne ko pour si si Noël bi xam nga mu waajee ko Noël bi xam nga moom moo loolu dafa bëgg téléphone bu rafet mu jënd ko téléphone bu seer waaw maanaam loolu sag la quoi waaw sa jabar loo ko defal rek pour man sa bopp nga ko defal waroo kenn waru iñaane sa jabar ñu bari dañ naan takk jabar day am lu muy def mbër bu mhm. teel a takk jabar baax na ci mbër. a takk jabar baax. Mhm. man faa ma ja man man man sama teel a takk jabar man dama si sant yàlla bu baax a baax a baax. barke Serigne Touba Mbacke maanaam. mais imagine toi bu ñu amul jabar tamit teewul dañ ñu ngi mel ni ko am jabar ñun si si milieu lañ dañuy dund milieu xam-xam ne ñu demee. Ah. fii ku fi moo loolu. mais am teel a am jabar dafa baax. maanaam da lay génnee si yu bari day tax doo dugg si yenn. det yenn business yi xam nga rek ay mm-hmm. science mm-hmm. waaw ay dem kasoog yooyu noonu yëpp yooyu yu bëri ñàkk am jabar mm-hmm. bokk na su lu koy lu lu koy teg doomu aadama daal non pas ay viol sax ah. boo amul jabar maanaam yow doo doo amati contrôle sa bopp ah, xam nga li ma la waaw maanaam mais boo amee jabar am na loo xam boo ko naroon def nga am jabar nga toog nii ah. nit woola si benn affaire boo xam yow boo naree dem sax nga xam ne fee lu ne mun na la fa xew boo xalaatee sa jabar ak sa doom doo doo dem doo dem di def loo xam ñu lay jàpp nga baal sa jabar moo la nekk si kaso. xam nga rek maanaam xam nga rek. jabar dafa baax. waaw maanaam ñi ñi dañuy teel am jabar man teel am jabar dafa ma sévéré. dafa ma génne si yu bëri. ban année doon nga mos a dund sa soxna loo xam te lu métti ci làmb la nekk soit ñu ne ko bëri nii xam nga yéen te soit bëri day wala mu mhm. am benn copine ñaan ko jigu la wala nangam nangam mais ban ban année doon nga mos a sa jabar loo xam te lu métti bu loolu am lu bari bari lu ko sévéré ci leçon comme maanaam. loo xam xamante ne dund loo xamante ne lu metti ci peut-être si sa combat lay doon. Mm. wala loo xamante ni nit ak nit moo la ko def sa soxna affaire yooyu loo xamante ne cee dund benn expérience boo xamante ne ba tey xam nga boo ko xalaatee rek lu bari day tax doo def doo def loo xamante ni teen duñ koy xëy waaw benn antidote bu may xalaat rek muy maanaam comme rek maanaam sama jabar mm. moom jàmbaar la daal kooku axoon ma maanaam ba muy nekk xale bu ndaw mm. ba muy nekk xale bu ndaw laa ko doon rek li ma laa ne ak a yàgg deux mille dix xam rek maat lépp maa si lu fii la mu nekk xale bu ndaw ñu bëri naa ma da ngaa ñàkk fayda xam nga xale bu ndaw bi ngay gérer mm-hmm. xam rek yaam tamit nekk koo xam ku ma bëgg la seen famille ñëpp waaw di jaale ben di jaale bu gaañu fan yee pa bëy di ñu ñoo doon ànd quoi mm-hmm. waaw di ko ñaan yàlla xaare ko seen àjjana yi ñëpp bëgg ma daal seen famille bi ñëpp mm-hmm. waaw ñoom Adama Fall ak ñoom Awa nga ñoom Xadi jabaru njambaan waaw ah, xool jabaru njama magamla wat sëriñ Tuubaa Mbàkke xam nga rek ñoom ñu bëgg ma daal yi uh-huh. papaam tamit noonu yaa papaam baax xam nga rek uh-huh. waaw ba tey ba nii maanaam moom uh-huh. nekk na koo xam te ne nii kenn musul kenn mënul taxaw ne kii moo doon doxaan Faa Bintu wala dara noonu maanaam amul bokk man man rek la xam ak Sëriñ Tuubaa Mbàkke man rek la xam xam nga rek doon na am sax moo xam yu bëri yoo xam te ne xam nga ay xaritam yu koy gëmloo yoo xam xam nga bërëb yi nga topp ay science xam xam rek bërëb yi bande la ay affaire yooyu noonu xam yaa am gën ay science métti mm-hmm. woon na torop nag ñu koy dund mm-hmm. xam rek daan liwee di di di liwee xam rek maa moom ñu xamal ma la mm-hmm. jugee foofu dëkkaat fii xam nga mooy loolu xam rek ay science yu bëri daal muy metti torop xam nga yaa am gën a maanaam dafa metti daal yenn saa yi mu doon metti te tey xool li yàlla def lépp moom moo ko fi muñ moo ko fi xaar parce que seen doom mu nekk champion suma jabar waaw ah, gis nga yow gis nga maa moom du ma ko bëgg sax fësal. dëgg la mais jigéen dàqu ko daal. nit ku rafet waaw koo xam maanaam macha allah daal. mu nekk koo xam ne daal jàmbaar la. waaw maanaam jàmbaar la daal. waaw moom dafa ba mu sëyee ba léegi musul fay boo comme ñu ne buusite daa xuloo jawara jawara mu ngi seen kër loolu musul am. macha allah sama diggante maa moom billaay day métti trop yenn saa damay def loo xam sax damay dagale. xam nga lu mu métti métti métti après day gérer fàttewaat lépp ñu nekkaat nekkaat si jàmm daal xam nga ñëpp ay góor lañ mhm. te ñun géejewaa lañ dëkk mhm. waaw te ñun si milieu lañ nekkoon daal mhm. hmm? ban message nga koy lancé waaw dama koy lancé def benn déclaration d'amour loo koy waaw lu ma koy déclaré rek muy maanaam na gën a muñ rek te tey gis nga dem nañ ba tey am suñu titre foncier dëkk suñu kër ah nekk ñu ngi tiwaan pël essan yi ah. te ba ñuy nekk di di tëb di daan du lée ah. mais xoolal lu ma lax rek ñun suñu kër doom bàyyi lañ dëkkaloon fii hmm. mais man dama nekk nit koo xam ne man man am na yoo xam góob ma ko wala damay génn dem léegi jël sama yoonu bopp ba keroog yàlla di ci mooy moom tam dafa toog muñ loolu ba tey gis nga tey sama gàlle Tivaouane Peulh ci ñoo loolu déclaration d'amour ci mois de décembre mois de fête la waaw mois de fête dama koy déclarer benn kii rek muy comme téléphone bi ma ko jëndal rek na ah. foo ko na tee sa kóol bu seer bi ah, kii boobu kii ba nga kii bañ këf sa kóol ne non non tee sa kóol li ma koy wax muy teel sa kóol bu baax kóol bu seer laa la jëndal ah. boo fi dof dof la bañ këf ko nag da ngay xaar si ndabari ngay delluwaat yaa ma gën a <laughs> mais moom su ma xarit la quoi ndeysaan ndeysaan non loolu moom du ma loolu xam rek maanaam àdduna day dox ah, moom mun na dem sax ah. àdduna mun na di dox mun naa taxaw sax ne man du ma tax beneen jabar mais àdduna mun na di dox di dox maa moom ñu ngi dund loo xam te ne àdduna mun na dox sax parce que kan mu ne ma bu taxal dama lay taxal ñaareel macha allah wallaahi te li ma lay wax ni moom sax man gëm naa ne loolu mu ngi si moom. Ah. te parce que li ñuy dundee la maam moom. ok barke Serigne Bamba. acca bu amaat mbégte contentement pour yéen ñu doon suivre sur Kewel Info. dëgg la xam nga ñun duñu doyal ci moom. dëgg la suñu nit la amuñu moom sens ci moom. dafa leer koy woo a mhm. la a ma a ah, sa bu jël lii waaye ah, bu ma bu jël tànk yi. ñu ma daal sañse ma nag maa bett. bu rek sañse nga. wallaay sañse ma waaye lii yow bu soo bu tilim bi. ah non lii sax du yoon gars yi di gis Bou Siteu sañse ma. Ah. danga maa bett. Ah. xam rek yaa ma gën a xam. dégg naa léegi Boucher nga tuddee sa bopp. non Boucher fan non man ngay bàyyi faal bi rek Siteu laa tudd. <laughs> Boucher moom suma suma mag la. Ah. kooku moom suma ma maa moom benn la rek. boo la mais ani ani Siteu yaa ngi koy dégg. ah Siteu. Siteu waa Siteu nag moom Mawal fan yee rek ba mu daanee noonu lañ gëj a déggante ba léegi mais jàmbaar nga noonu Baye Fall instant mu ngi Amérique sax. xam nga rek moo loolu li nuyu jabaram bu baax nekk ku baax faama. waaw nekk nit koo xam ne ndeysaan soxna su baax la daal. faama ndeysaan looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo nag mooy gis nga ba ma bëree ba léegi tooguma gërëm ñi jàpp ci combat bi. gis nga ku si mel suma papa la Diop. waaw moom dama koy sant bu baax daal sàngara maa koy envoyé message. Mm. di ko remercier daal si combat bi maanaam ni ma jàppalee seetaanuma waaw ku si mel ni Tony Njaago waa diaspora bi mm-hmm. waaw la monsieur Lat Diop Ba dama koy sant daal yàlla defal ko jàmm di ko ñaanal xama rek waa nit ku baax la daal Farba Dia mu ngi mel ni mooy maire Guédiawaye chaque jour ma wax ko sama émission mm-hmm. te parce que si social yi muy dox fan yi passé rek benn booy boo xam ne fii la dëkk koñ bokk jom mm-hmm. feebar fi feebar boo xam ne dañ ko war a évacuer yóbbu ko Europe mu jël ko en charge yóbbu ko Europe teg ay millions yu bëri tey booy bi boo buñ demoon si gaal bi nga gis mu nekk di nekk si kiiwam benn soxna soo xam dafa xamoon tawat Lat Diop di def social bu day waar si biir Géejawaay xam nga Omar mbay tamit maa ngi koy sant Lat Diop xaalis bu bëri la ko jox yëkkati un million jox ko Omar Mbaye indi ko mm-hmm. xam nga rek ñoom la Diop moo la jàppale lii daal mm-hmm. Omar Mbaye maa ngi koy sant di sant ñoom Paul bu la Diop xam nga ñoom Paul ñoom dañuy doole Lat Diop quoi ñun ñoo far benn la mafia bi ay ñoom Fall ñoom Moussa xam nga ñoom Seexu naa ñu ñëpp maanaam Lat Diop ku baax la daal mm-hmm. maa ngi koy sant ba di bëggee tamit waa diaspora bi Tony Ndiago ah. combat bi xaalis bu bëri la may di di sant jabaram jabaram moom ba ba ba ko Tony Ndiago ne bu lañ daan xam nga rek a am lu lu ko metti daal hmm. Tony Ndiago bi laa la may woo di ko wax hmm. waaw di ko mosaw di ko xam ne rek sport la noonu la hmm. waaw li si kanam mooy dàq waaw di nuyu jabaram bi baax Tony Ndiago nit ku baax a ngi noonu fan ma ja parce que Serigne Bamba Momar waaw Momar kii borom li sama doomu yaay la ñëpp mooy loolu ñoo fowndoo lu yàgg dëgg la ñi bañ nekkee xale la ñi maanaam ñoo ak ñoom làmb boolewuñu waaw maanaam chaque jour moo koy wax samay kii man képp kuy bëgg bu Siteu rek mhm. bëgg ko rek te yàlla bu ko bëggee ngir làmb mhm. te parce que Far Media làmb bu jeexee rek kon danga may bàyyi man boo ma bëggee ngir làmb après làmb bu jeexee danga may bàyyi ta man ñi ma bëgg dañ ma bëgg te yàlla tax yow international bu waaw bu Siteu international la maa waa ñoom Momar maa leen di sant bu baax mu caam Séré Ajara ah. moom chaque jour dama koy tudd sama émission da nga naa ma kan mooy Mo Thiam. ah Mo Thiam mooy kan ndeysaan Seera borom London. moom laa wax keroog. waaw ku baax a ngi noonu. wallaahi day jàpp sama combat bu baax a baax a baax Mo Thiam Seera Ajara maa lay sant bu baax borom London. Hmm. di bëggee Pape Fall complexe Eva combat bi jàpp na si. Hmm. Pape Fall complexe Eva nekk suñu papa ju baax mu ngi tënkee nii actuellement. Hmm. waaw maa ngi koy sant di sant tamit xam nga ku si mel ni ñoom sama mag góoraa ñoom jàpp nañ si combat buuse Ketchup. noonu jàpp na si xam nga mooy ñi boos boos tamit maa ngi koy sant bu baax borom exibet mhm. boos maa sant bu baax waaw moom tamit xaalis bi combat bi xaalis bi bëri la ma yónnee daal ak ku si mel ni muy ba Sita Fadia ñu koy wax am di mhm. am di nekk koo xam te ne xam nga commerçant la nit ku baax la di sant tamit waa Sandaga bu baax ku si mel ni suma benn papa bu baax boo xam Mor Mor tamit jàpp na si combat bi xam nga ak ñoom yeyaa ñoom naar xam nga waa Sandaga waa aslem xam nga ñoom mbay jenn ñoo xam dañuy sonn si buuse téyeer yi nekk aslem maa ngi sant bu baax a baax a baax damay dégg vocal yëpp waa diaspora bi aw ma seen fay dëkk yi fépp foo dam Bou Siteu international la ñëpp ñu koy bëggee rek mhm. waaw maanaam Salmadia léegi fu ma dee bay dugal stade di am ay sept cent vi ah, xoolal li ma laax rek yow loolu yomb na wala yombul ah, kon nit ñi bëgg nañ ma parce que soo su ma la dugalee stade nii même pas même pas wallaahi mooy loolu Sénégal àdduna laa lay wax. international nga bu dëkk bi diaspora bi fépp. ñëpp mooy suivre. acca bu kontaan naa ci yow. xam di kontaan si ñëpp daal di bëggee Fall di bëggee tamit Ndeye Diagne. suñu defee émission bi. Ndeye Diagne maa ngi koy sant bu baax ñoom Maka Diagne xam nga ñoom Mami. xam nga Mbène béykat yi béykat yi demul woon sëy. ak ki ñu ma bàjjalee Fatma waaw ma bàjjalee seen Fatma bu baax. xam nga ñoom Fall Moussa Mor Kanja xam nga Seexuna suma doomu yaay doomu nday mbay défense yi mm. ñoom àlla ñoom njaga xam nga waa défense yi ñëpp maa ngi bu baax a baax a baax dafa caam ñoom ñëpp maa ngi leen bu baax waa di bégee waa mm. ba jàmm ga nekk nit ku mm. waa ñas maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax ñooñu suma ay ñaankat lañ ñoo xam te ay nit ñu baax lañ daal waa di bégee gars bu baax a baax jaajëf mm-hmm. Basiru